alhamdulillahi rabbil alamin ala qudumi sayyidina almuxtaari munxatimu bushra lana maxshar alislami kullihimu is yantafi durru walbaxsa waladamu cheikh ñëw na daaru salaamin bamba nuyu si na leen bég leen te sant sëriñ tuuba te dellu damu jóg leen siyaare ji cheikh waa réew mi sargali leen alaaji seex anta yor nay mbóot yu rëy yu la marxaba yaa seyxu anta mbaate jàmm nga am malaaj la waa ak ñay korta kay xeramu mas mbakke cey li nga daj ak yen bu rëy bi nga fab dangañ di te newoo woy man siggil te damu mas mbakke yen bi nga dencaxloo ka metti fi nun ngir dees ko daa jooy nga def koy ree ba farnu ramu mas baal nu xaq sa yen bi diis na gan fi nun sa xol bu set booyof bee tax nga faw xakumu yaa takk ndomba ga yaa nu suru ya dàq wasal nga naayi góor ña tagaalee fut la tey ci lumu médaille ya xut bu yarangoo woon takaan nga ko tey yaa toog calal ba ci baatin bis ba nag nu rammu tukkal wolof ne ko attan ngaaxe yaa di danoom natoo di ngaaxi sëriñ Tuubaa ku peese damu yow sëf nga sippi nga jaajëf mbàkke peese nga tey si ñeef na say bong fa diiwaan not nga fay ngërëmu biddiw nga woon ba nga fi jóg dem di weeru badar leeral nga waa segu ñëw dib jant tiim nga fu mu Cheikh Bamba noon na muri saadix du dégg wolof yaay wom mata bama ko xaay ak si góog njërëmu juróomi at ya nga am foofee jeneer na ci yow nuurul jalaali sa leer gi wóor na képp ku mu kenn dootu lëndëmtu maam seex jant ba jant baa ngi fi nun leeral nga dunyaa uxra mbàkke yow gëlëmoo kenn dootu lëndëmtu maam seex jant baa ngi fi nun leeral nga dunyaa uxra mbàkke yow gëlëmoo leeram nga faw xana leer ak jant daxwatahu yawmal quduumi keroog saytaane réccu na mu jumaada luula la ñëw daaru salaami dibeer juróom ñetti fan suuxal na jant bu mu bushra faqad taala xusnul xalqi ma alamin wa laylatul fikri anha maatati zulamu is saahibul gaybi anna saara za xadarin wa huwa alladi la yazaalu dahra yuxtaramu is saahibul gaybi anna saara za xadarin wa huwa alladi la yazaalu dahra yuxtaramu addi imam Cheikh Anta mbokki téléspectateurs yi jàkkaarloo nañu seetaan bokk yi ne ci àdduna bi ak fu ñu mën a nekk bokk yi nga xam ne ñoo di ay gëstukat yu jëm ci dund ak jaari jaari maam Cheikh waaye di gëstu itam lépp loo xamante ne bi taarix la ñeel yoonu murit ñoo ngi am mbégte di leen nuyoo fii ci keppaaruk ko sëriñ Anta Mbacke xalifa Serigne Mouhamadou Rokhaya Mbacke mi nga xam ne mooy njëkk nekk xalifab Cheikh Mouhamadoul Mamoun Serigne Moudou Mamoun di ki njëkk a wuutu maam Cheikh maam Cheikh di borom jataay bi nga xam ne moom la ñu toog tey jii Euh, ginnaaw boo xamante ne bii euh, jot nañu ndigal ci euh, Serigne Mouhamadou Lamine Ka xalifa Serigne Moussa Ka yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér mu wàcc ci Serigne Makhtar Gueye di turandoo Serigne Mouhamadou Rokhaya di waajuram di do di turandoo Cheikh Mouhamadoul mu bokk ci taalibey Daaru Salaam yi ci gëstu bu yàgg boo xamante ni bii Serigne Moussa Ka defoon na ko ci dund ak jaar-jaar yi maam Cheikh mu jëm ci wàllu euh, benn bi di nattu ba nga xamante ni mooy ba mu demee Segu te dégg nañ sëriñ Abdou Lahad Ka bayit yi nga xam ne yëkkati na ko ci beneen bi itam di xayaatu maam Cheikh di dunduk maam Cheikh goo xam ne sëriñ gaawaan moo woo sëriñ Moussa fii ci Daaru Salaam di ko wax boppam lu mu ci fàtte na ko demal laaj ko sëñ Ndaam Abdourahman Lo wala nga dem laaj ko sëriñ Mbacke so loolu nag la sëriñ Moustapha Guèye imprimerie euh, taalibeb Cheikh Mahamadul Moustapha al Karim jot ndigal loolu nag dajale nag marché yooyu muulaat ko delloowaat ko ca cosaan la nga xamante ne bii képp koo xam ne da ngay gëstu mbirum maam Cheikh Anta boo ci ñëwee da am dellukaay delluwaay yu wér loolu nag moo tax bi téere bi noppee mu ñëw fii ci ki nga xam ne moo di Serigne Cheikh Anta ngir jébbal ko liggéey boobu sëriñ bi fas ci yéenee yëkkate ay kàddu su noppee danañ leen daal di leeral nag téere bi ak képp ku ko itte woo fa ngay jaar ba am ko kon ñu maa si déglu Serigne Cheikh Anta mbokk yi bu baax a baax moom mi nga xam ni moo dégg amuk dégg amu xam eh, di ko sant tabaraka wa taala bi mu nu mayee nu nu àdduna doomu adama nu am xel di ci xalaat ndax li mu bind lépp am nañ xel waaye xalaat gi mën a jëriñoo seenum xel moom la doomu adama wuteeg ñëw kon téere bu mel ni bii sëriñ Moustapha Guèye indi ànd ak sëriñ Modou Rokhaya mii ñu am ci ndigalul xalifab sëriñ Moussa Ka ñu ànd ak sëtub sëriñ Moussa Ka nii sëriñ Abdou Lahad Ka di doomi sëriñ Saliou Ka ah, te jàng mooy baat bi sun borom njëkk a wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran ko jox ba mu ko ne jàngal da ko waxaat ne ko sa nuqri uka fala tansa danañ la jàngal waaye bul fàttali li ñu la jàngal ci taarixu taarixu ña jiitu ak ci lii xew yi ñi ci sa kanam li téere bii nag ma gis ne barzan jiyu bi barzan kenn amul ci siira walla nga bind ci siira lu mel ni barzan waaw yi nga xam ne tam sëñ Musaa Ka bind na ko lu mel ni gisaaw sakkoo géej gi ak gisaaw sakkooru géej gi murit bu ne war nga koy jàngal sa njaboot daara junne war nañ ko fa dugal ñu di ko jàng ndax mooy histoire Cheikh Ahmadou bàmba bu wér mooy histoire yooni yooni bu wér téeméeri téere yoo génn yuñ bind ci histoire Serigne Touba juróom-ñeent daanaka euh, leeru ya bari na yàq lool bari na yàq ci dat yi ba bari na yàq ci eh, ci li ñuy nett li ci sëriñ bi eh, sëñ Musaa Ka nag moom dafa toog ginnaaw bu ko sëñ bi solee ba noppi dafa toog ñu di ko wax muy bind eh, li mu toxal li mu toxal ci ay téere am na waaye teewut liñ ko sol moo ëpp doole li mu tuxal ci téere yi kon nag téere bi ñi ko taalif ñi ko suñ musaaka mi ko taalif noo ngi ñaan suñu borom dolli ko leer waaye njabootam ki nga xam ne joxe nañ ndigal ñu móol ko ba tey jii ñu andi euh, móol boo xam ne mooy mars marsiyatu maam Cheikh ñu dëppale ko ak màggal gi nga xam ne mooy bis bi Serigne Touba jóge ci géej gi ñëw Daaru Salaam maam Cheikh ganale ko fii ku bëgg ku bëgg xam ganale gi te bëgg a xam maam Cheikh téere bi liñ koy wecc koo bariwut kenn ku nekk war nga ko am ndax nit lu mu nekk da koy xam mm-hmm. suñ boroom sax dafa wax ne taarifuuni bu an nii na ngeen ma xam bala ngeen maa jaamu wa in lam ay fa kayfa taabuduuni bu ngeen ma xamul bu ngeen may jaamoo kon nag nit day xam li mu li mu li mu topp lu mu doon xam li mu gëm lu mu doon téere bi merci baa ngi ci leneen ak leneen a ngi ci jësaawu shakara ci saw ci saw sàkkorañ ji bu géej gi ak bu jéeri ji ak yeneen ak yeneen yoo xam ni euh, ko jàng dootoo umbale dara ci yoonu murit kon nag maa ngi ñaanal euh, sëriñ Moustapha gi mi nga xam ne moo ko mool di ñaanal sëriñ Modou Rokhaya mi nga xam ne taxaw na ci taxawaay bu rëy rëy boole boole ay xasida ay ay woyi sëñ Moussa yu bari mu jébbal ko sëñ Moussa sëñ Moustapha Guèye sëñ Moustapha muul ko kon nag loolu doy na daanaka ñëpp xam ne ñu ngi leen di woo ci màggal gi ñëpp xam ne buñ ñëwee danañ fi gis yeneen yoo xam ne yi ay mbind la yoo xam ne lépp dafa laal ci histoire u maam Cheikh Anta ak histoire u Serigne Touba. jërëjëf mbokk yi kon ñoo jot a dégg kàddu yooyu téere bi nag mi ngi nii nattoo di kerkeraan bi moo ci nekk marsiyatu Cheikh Sidil Muxtaar mi ngi ci muy xayaatu maam Cheikh eh, xarnu bi am na ci xasid ak màggal yi am na ci matlabul xaajaat am na ci marsiyab maam Cerno Ibra Faati am na ci. wasiyatu niswaan am na ci al ajug ajug makka gi am na ci wala falu jumaa ji am na ci ci sawu sàkkooru géej gi am na ci barsan ji am na ci kon day mel ne téere bi lu bari la loo xamante ne bi lu ñu dajale la fii li ci nekk ci ay euh, taalif képp koo xam ne soxla nga ko it mën ngaa dem ci imprimerie Baye Moustapha Guèye wala nga jël numéro téléphone bii di 77 632 13 cinq 77 632 13 55 kon damay jox Serigne Abdou Lahad Ka mi nga xam ne ci ndigalul ay juram lañu moole téere bi. ziare sun kilifa kii di Serigne Cheikh Anta ñaanal ko sun borom mu dëral taxawaayam barke Sëñ Bamba ziare Sëñ Moustapha ak mboolem yëpp. xam naa li ñuy tënk rek ci kii bi nga xam ne jëmbi téere bi ci boppam lamboo na ko nga xam ne day dolli xëymimteefu taalib bi bi aju ci yoonu mu di rawatina Daaru Salaam. da da ci da ko ci doole xemem teef tax mu gën ci sawar loolu laay andi rek maa ngi fi teew ci samay ndigalul kilifa junj nga ko léegi waaw ànd ko sëñ sëñ Moustapha euh, liggéey ba mu agsi fii téere bi yi ci làmbu mi ngi aju ci murid yi déglu leen la daloon yónneen ya natoo di kerkeraan jaaraama maam Cheikh Anta maam Anta Ndiaye marché si Cheikh Sidi El Muxtaar ak bis ba mu gënee àdduna moom maam Cheikh Anta fa maam Cheikh Anta jaaroon at ma sëriñ Massamba Mbacke juddoo euh, mas naa yoral Cheikh Bamba kër yi ma amoon ci réew mi moom maam Cheikh Anta ñaari doomi Anta xar baax yi maam sëriñ Gaawaan di maam Cheikh Anta yeneen i xar yi mu def ak na mu demee li ma gis ci leetar yu ko sëriñ Tuubaa bind mi ngi ci biir téere bi la Bamba waxoon waa Sénégal te jaare te wax ko ko moom maam Cheikh Anta mi mi mi mi ngi ci talaata euh, lañ koy yeb ci gaal gu ñuy wax Express ma nga ca la xewoon ca kasase atum kasase ba maam Cheikh Anta di sanc Daaru Salaam mi ngi ci ba Alhaaji Malick ba Alhaaji Malick Maodo faatoo ca Tiwaawoon na ca maam Cheikh Anta doxale ak lam def ca ñaan ga ak sarax sa la maam Cheikh Anta defal waa Canaba euh, ba Cheikh Sidiya Baba faatoo ci réewum gànnaar euh, na mu ca doxale moom maam Cheikh Anta aj màkk maam Cheikh Anta ak yee ca xew ak ñam àndaloon la maam Cheikh am Anta amoon ci ay cheikh ak seeni tur mbokkam yam yoroloon boppam te te teñ bokk askanu Mbàkke te mu yaral leen boppam na na mu demee mu ngi ci biir la maam Anta amoon ci ay bëkk néeg ak seeni tur mi ngi ci biir euh, la maam Anta amoon ci ay chauffeur ak ni ñu tudd mi ngi ci biir ña maam Cheikh Anta amoon ci ay noddukat ñu ngi ci biir ña maam Cheikh Anta ci ay secrétaire ñu ngi ci biir guddi gamu ba ci di ko topp di ko topp bàgg ci guddi gamu wujjee sunu borom subhanahu wa taala mu tëje ko nag ma dellu ñaan ci yàlla ak yem àndal ak naajima buurate ak ak euh, xasida gu tudd haatihi hadiyatun nga xam ne sallallahu alayhi wa sallama daraam euh, sunu borom da ko bàyyiwut kawaruk boppam nga la ca sax ci ay kawar limba ak sikkim ba ci boppam nga xam ne dara desu ci na mu toll ci ab lim ba wax ne ku ko mokkal doo doo doo doo doo doo gumba gumba xol te doo tabbi safara yëpp ngi ci téere bi kon dañ doon barkeelu rek ci ndigalul Sëñ Fallu Galasil la euh, ci ndigalul mboolem ñu ñu àndal di ñaan sunu borom defal ñu tawfeex ñu àgg ca màggal ga ak jàmm te weesu koog jàmm te yàlla may nu ngëneeli bis ba barke borom Daaru Salaam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.